salaamaaleykum mbokk internet yi di leen nuyu baax a baax waaye di am mbégte ak contentement di jaro yéen chaque jour saa su ne waaye lii gën a neex nag mu feggoog sama mag sama xarit Mbaye Babacar borom Diourbel leen jukkil li gën a fës laataa loolu ma koy bàyyi mu nuyu leen laaj ko nan la fanaanee wala naka la nar a yéen ba bisum <laughs> waaw xanaa xanaa sant yàlla bu baax a baax a baax namoon la wante tamit namoon suñu mbokk internet yi di leen ñaanal jàmm ak salaam di leen nuyu yow tamit di leen nuyu di bëggee ñëpp di ñaan yàlla defal ñu jàmm bu baax a Mbaye Babacar la borom banaana yi xam nga war nga maa sant de temps yi maa yor sa ndékki de. waaw temps moom yaa ma yor temps moom macha booy ñëw kilo banaana ngay andi boo ñëwee teg fii libre teg fii libre macha allah yàlla na si jàmm yàgg. jóoba jubba sama rakk ju baax non Mbacke Balla Aïssa maa ngi nii Mbacke Balla Aïssa jóoba jubba Mbacke Balla kon Mbacke Balla Aïssa ayca Mbacke Mbacke bi maa ngi di damay ne saraax ci journal suñu lamb moom nag ba xëyee ci xëtam mu njëkk kan la xëyee di Balla Gaye numéro 2 la lu yow da géejëwaay wala xale bi nga xamante ni jombaloon a làmb fan yi ñu jug wala at ñu génn ba tax na ku ne làmb rek ne Balla Gaye 2 moo ko tey ci loxoom waaye nag deux yi ñu mujjee mbay baawakat dafa mel ni kii di Balla Gaye numéro 2 doomu géejëwaay dafa indi beneen xar kanam bu bees waaye xam kanam boo xam ne kenn xàmmeetu ko ndax lim doon wane waneetu ko lim daan bëree bëreetu ko ba tax nañu baisse dramatique wala baisse drastique de régime pour Balla Gaye numéro 2 un lion aux abois loolu nag jaaxal na ma lool. baisse drastique de régime la ñi ki nga xamante ne bii mooy suñu làmb wax tey mu mel ni Balla Gaye numéro 2 le lion de Guédiawaye comme ni nga ko waxee bëri na ak sampion yu bëree bëri ci làmb ji nag daan fi champion yu bëree bëri ci làmb ji tamit ki nga xamante ne bii mooy Yékini. Balla Gaye numéro 2 moo ko njëkk a déggloo muñal ci làmb ji mais suñu làmb tey dafa ñëw ne gaynde gii dëkk fële ci géejuwaay di magu Sa Thiès di borom këru bu buri bàcc li nee na li ñu gisoon ci moom au temps bu signature de contrat ni mu doon tàngale ni mu doon yëngale nim doon ñëwee ci combat ni mu doon bëree gis nañ ne léegi dafa xaw a am changement dañoo xamul nag ase bi mu commencé jël la wala dafa commencé màgg ci beneen côté mais nee na daal Balla Gaye numéro 2 ndaanaan boobu nekk fa fële ca géejawaay ni mu doon waxee ci signature de contrat yi wuute na ak léegi ni muy bëree mais nag nañu jàpp ne ndaanaan la ci biir ndaanaan yi ndax maa daan yëkkandi ci làmb rek loolu doy na ndam ndaanaan la waaye journal ba léegi mu ngi fasal nee na li tax changement boobu ñoom dañoo mën a jàpp ne ndax sport business bi def la wala waaw parce que li mu boole ñaari xam-xam na ne fan yi dugg na ci li nga xamante ne bii moom mooy sport business bi di def làmb di ko booleek ay yeneen activités yi nga xamante ne bii wax na dëgg nag day préparer boppam pour bu làmb ji jeexee mu mën a am ci lu dëgër la nga xamante ne bii dina ci mën a téye ñeneen di ci ñeneen mën ci liggéey di ci gis seen bopp. ay tax kooku Balla Gaye numéro 2 la ba ca kan jëm nag mooy troisième journée ki nga xam ne mooy ñambur production ki nga xamante ni mooy Lion Raay moo imposé force am ci nga xamante ni mooy Cheikh Ñaa Mbay Babacar Lion Raay moo fa daan seex Ñaa loolu mi ngi amoon la le 22 euh, foofu ci euh, s mu ngi amoon euh, barki démb fële ci stade municipal bu Mbour Lion Raay nag moo gën a nekk xale Cheikh Niang moo tax bi mu ñëwee mu won ko force am won ko dooleem won ko tamit xele la xale laa ba nga xamante ne bii dañu maa yokk yónni yàkkamte ma ci 4 minutes 23 secondes la ko daan euh, loolu nekkoon drapeau baabu Sow foofu ci stade municipal bu euh, Mbour Njàmbur production moom moo ko tëggoon nekkoon la 22 bi le passé foofu ca Mbour Géej kon Lion Raay ñu koy euh, félicité bu baax waaye Cheikh tamit di ko wax démérité woo parce que tamit ndaanaan ayca ca kañ jëm nag di Lamine borom Lutte TV waaye Lamine borom Ceeskaay benn dëkk ñaari gaar moom nag ba ngay décortiquer choc bay am le 29 mai bi ñu jëm diggante Fils de Max ak ki nga xam ne mooy Batista lam cee xam ne nag di ko fësal mooy ki nga xam ne mooy Fils de Max mën naa def lu méttee métti ki nga xamante ne nii mooy Batista numéro 2. dañ ko taalal micro mais ci biir waxam tamit nee na ñoom ñaar amul favori su fekkente ne bii. lit simple bi la mën nañu jàpp ne Batista am na ci wàll bu mag a mag a mag ndax bëri na ak tenoor yu bëri ci lit simple bi te it day bëri ci lit simple bu baax a baax day day bëri ak ñoom caaka fay ñoom Ibou Ndiaye Obali ak ndaanaan yooyu nga xamante ne bii ñi ngi ci euh, làmb ji euh, nee na nag ki nga xamante ne bii moom mooy fils de Max géant la xale la am na doole te war naa wane boppam ci combat boobu nga xamante ne bii ci la jëm incha allah mu nar a nekk combat neex a neex ci ñoom ñaar day bàkke keneen ko da ko tëkkee beneen combat nag di ki nga xam ne mooy Pape Diagne Seras ci Sokh ak Franc nag la doon wax nee na combat boobu xale yi nar a disputé dina nekk combat bu électrique komba combat bu nar a métti diggante ñaari mbër combat bu électrique combat tàng Pape Diagne Seras mooy président de managers yi nekk foofu ca Louga nee na ñoom ñaar ku ci nekk am na loo am ci combat bi ndax nee na euh, euh, Franc mbër la ma nga xamante ne bii euh, mën na mbapat te it bërëm day gaaw bu jàppee rek day day day gaaw def action bi nga xamante ne bii moo lay normal day def action bi nga xam ne moom moo lay daan nee na nag sook macha allah heure bu amee combat rek ñu ne combat bi du ci génn combat boobu da cay jëlee ndam combat bi nag booy xool ñu bëree baree bari jox nañu franc euh, favori mais nee na combat la ba nga xamante ne bii daal du yomb te dina metti ci ñoom ñaar ñëpp. dañuy jéggi dakaar dem Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar fekk fa Boy Jaxaaw Boy Jaxaaw nag ci combat bi mu war a bëri nee na combat boobu combat góor dëgg la nar a nekk ndax combat bu nar a lay doon. nee na ne du nekk yëfu jigéen yëfu góor lay nekk parce que moo ko Ousmane Gandi Gaal allah ci luy baax lay doon ruq bu sedd moom xalaatul mu am ca ki nga xamante ne bii moom mooy euh, pap mbay papa ji ne ko ah ndaanaan ngay bëreel de te war ngaa ànd doole. war ngaa andi efficacité war ngaa andi rapidité soo bëggee génn ci Ousmane Gandigal ñett il faut nga andi ko doole rapidité ak li nga xamante ne bii moom mooy engagement ndax Ousmane Gandigal mbër la ma nga xam ne ëpp ko doole sax taxul nga daan ko ndax bëri na ay pexe te it daan na champion yu baree bëri Thiès loolu incha allah war a nekk le 29 si di jaxate production moo ko amal. naqar ak tiis dafa dal ci li nga xam ne mooy axlu làmb benn mbër bu ñuy woowee bu ñu doon woowee sax ayikoon laa moom nag génn àdduna nekki barki démbo ci malaise bu mu amee woon mbay maa ñu koy ñaanal suñu borom yërëm ko te jéggal ko di ko ñaanal képp ku mu fa fekk ak ku ko fekk ay kon euh, jaar na fi nga xamante ne bii mooy écrit Pikine Mbooloo jaar na écrit ball Gaye jaar na fi nga xamante ne bii mooy écrit sàkku xam-xam suñu làmb nag ñëwaat ci li nga xamante ne bii moom moo di jaar-jaaram ndax nee na bëri na ak ki nga xamante ne bii moom mooy Boy Niang numéro 2. bëre na ak Colombo bëre ak Cargo waaye bëre na ak ki nga xamante ne bii moom mooy Commando Junior ak Manga Junior nekkoon champion ci làmb ji ci gannaaw gi nag ci la bàyyi làmb mais nee na ci anam bi ci anam bi ñu ko gisee mu daal di faatu nag ci benn malaise la malaise bu ko dikkal la foofu ci wetu géej gi. yàlla ko yàlla yërëm ca galaa ba nag galaa lu simple ba doon am ca mbuur lañ jëm seex ëmma moo fa daan ki nga ne mooy bébé 52. waaw ah, ci euh, simili yu néew la ko seex ëmma daan euh, ñi nga xamante ne bi euh, foofu ci stade municipal bu mbuur la amee woon mais suñu làmb nee na amoon na cinq combats ya nga xamante ne bi sans frappe la woon amoon na foofu ci stade municipal nee na daal jour boobu seex ëmma wane na boppam bu baax a baax dégg nga li ci dégg loo ci dégg am ma B52. am ma waaw am ma ak B52. mu mel ni. may doo ma dugal. yaa ko wax mu mel ni troisième combat ba la woon wala. revanche woon yaa ko wax. revanche la woon mais dafa mel ni. am ma daa delloowaat am ma bu ma ca mboy boy ba. ah ma nga noona. <laughs> ka bëgg a dellu ca mboy boy ba nag mooy Toubacouta après sa victoire sur Malal Niani lam cay xam ne ce serait la relève de Bombardier ne moom nag. daa mel ni kii di B52 la bëgg a jël ak relève am. ay tànkam la bëgg a jaar fa Bombardier jaar. mu jaar la Bombardier def mu def ko wala mu def sax lu ko raw loolu la tax xam le gannaaw ba mu daanee malam ñaane barki démb fële ci stadium Iba Mar Diop suñu làmb nag waxtaan na ak moom mu xamal leen ne avant combat bi bi mu desee ay semaine amoon naa gannaaw guy metti gu ma doon empêché nga xamante ne bii ni ma du waroon a entraîner normalement sax daawuma ko mën a entraîner mais yàlla sutural na ma ba ma génn ci combat bi ak ndam mais nee na daal li nekk ci kanamam képp ka nga xam ne jël nga avance am da nga xam ne jël nga avance bu doy waar. Fils de Balla loolu laaj. waaw laaj na waaw laaj na Fils de la waaw laaj na Gris moo ko ko dee. waaw moo indi histoire Fils de Balla daa mer ba fii. gri 2 moo ko ko dee moo ko ne laajal Fils de Balla. Hmm. waaw mu laaj Fils de Balla et puis loolu la làmb. waaw làmb làmb surtout làmb xale yi. Hmm. lu naan rawante amu ci. rawante amu ci dabante la ku ci nekk war ngaa mën a bëre ak sa morom mi ngi noonu ñoom ñaar bu leen làmb boolee war nañoo mën a bëre Toubacouta nag keroog tamit combat bi li ma ci gën a li ma ci gën a impressionné mooy que mobilisation bu am doole bi mu def euh, dégg naa cinq blocs la jaay hmm? avant muy ñëw ci stade bi moo tax boo boo duggee ci stade bi parti bi ngay jàkkaar lool tribune bi ngay jàkkaar lool ay supporters am kese fan loolu la nekk la nga xamante ne bii pour mu amaat combat dina yomb incha allah bu neexee yàlla. promoteur yi moom. écrit campement la nekk. campement lay ngemboo. ñëw Dakar bu bëree ba pare delluwaat campement. guddi guddi campement guddi guddi campement. te <laughs> kooku nag Pape Diagne ñu naan ko soox soox moom nag ba ngay def li nga xamante ne nii dafa réussir première dugg seem ci wàllum lutte avec frappe. waaw ah, première combat am ci lutte avec frappe gannaaw ba mu tojee mbappat bi bëreeg champion yu mag yëpp ci mbappat tolluwul ni gaa yi waaye day daan gaa yi waaw moom Papa Ngane Sossokh tolluwul ni ponkal yi wante day daan ponkal yi mi ngi noonu euh, suñu làmb nag nee na premier combat am arène réussir na ko daan na ko euh, gannaaw ba mu demee drapeau du chef de bokkoon ci équipe bu Fatick bi ñu mën a jàpp ne Papa Ngane première combam daal alhamdulilah am na ci victoire di xaar yeneen combat arène ay sax que ñi bëgg victoire mi yokk waaye ñiy xaar yeneen combat moo ko tëgg di Boucar Ndour mi nga xam ne reporter la ca Lutte TV moom nag gala ba ñu amaloon tuddee ko fan club Boucar Ndour ki nga xam te mooy Ndiol Géant moo fa jël raw gàddu nga Mbaye Babacar. Bargny la dëkk Ndiol Géant moom moo jël euh, li nga xamante ne bii moom mooy euh, raw gàddu ba moo jël poids lourd bi. daan fa ñuy wax Ablaye Ndong di fàttali ne euh, tournoi boobu nag ñi ko tëggoon ñooy fans club Boucar Ndour suñu naataango boobu nekk ca Lit TV ñu koy euh, félicité bu baax a baax di ko ñaanal jàmm ak salaam di remercier fans clubam boobu tamit di ko wax ñu gën koo dooleel ndax olof Ndiaye nee na suuf bu sutantee dañ koo jàll te ku ñeme ku nekk dan laa dan laay dee ngi noonu kon daal mi ngi noonu loolu moo amoon ca mm. euh, jaxaaw dëkku Bukar Ndour di dëkk ba nga xamante ne bii dëkku làmb la champion yu bëri daje woon fa jaxaaw si ca noonu nag ki gëj gëj a gis dëkk ci làmb loolu muy lees numéro 2 doomu Daouda Fall waaye magu ki nga xam ne mooy caatu Daouda Fall. Ah. di ki nga xamante ni champion bu mag la waaye moom nag la muy xamle ci journal bi ka muy defee nag di Yékini Junior Mbaye Babacar. nee na moom la bëgg a bëreel gannaaw ba mu toogee ay at dugg ci làmb ji bëre nee na fi mu toll nii bu sañoon ñu jox ko avance su yëkk Yékini Junior mu lekk ko jëflante ak moom ndax xam na li nga xamante ne bii mooy daan Yékini Junior nee na. ca noonu nag dama ciy profité rek Mbaye Babacar li ñu yëgul ñun ñi di ko jaale moom moom les de ak Thiat Daouda Fall yaayam mi nga xam ne dafa génn àdduna ñu ko ci koy jaale bu baax a baax man yëguma ko dëgg la dëgg la trop tard laa ko yëg moo tax ñu ngi leen koy jaale bu baax di bokk ñoom tiis bi tamit euh, di ñaanal suñu yaay jooju génn àdduna di yaayu les de ak Thiat Daouda Fall suñu borom yërëm ko te jéggal ko. Aïcha ca dem nag mooy jëtli jëtli nag mu ngay séjourné Atlanta ginnaaw bañ ko ko jéggi si làmb ji rek moom nag mu nga foofu kam mujjee bëreel Mbaye Babacar dafa mel ni jam téeri la mu daan ko jam téeri la mujjee bëreel mu daan ko mi ngi noonu nee na nag saison bii di ñëw mi ngi waajal te bëgg naa ñëw te buy ñëw day ñëw ak doole nee na mi ngi waajal boppam bu baax a baax jatli di la fàttali moom mooy magu sook moo ko sook ñoo bokk ndey ak bàyyi mu nekk mbër ma nga xamante ne bii nag ku am cër la ci làmb mais dafa màngoon dem fële ca États-Unis ni ñu koy waxee xar dawul mais dafa wuti doole am nañ yaakaar na buy ñëwaat saison prochaine incha allah mën na andi beneen xar kanam ci wàllu bu moom jat li ayca dama koy béggee bu baax a baax waaye cat ak ngërëm na ko lan moo gën a mooy tàggatoo yi moo gën a fës ci xibaar la lan moo gën a fës ci tàggatoo yi <laughs> dama dama topp rek jàppoo tey su may tàggatoo nag damay sant bu baax a baax a baax Seydou nekk fële ca Seras macha allah hmm? waaw ngay jàpp ma waaw seeraas la nekk moom moom la ñu tuddee nan Real de Madrid wala wala wala wala Bayern macha allah Seydou di ka nga xamante ne bii mën na li muy def macha allah bu la saafalee rek mbaa mu lakkal la nga ne waaw yàpp ba nooy na neex na macha allah sax na yàlla na sa jàmm yàgg yàgg Seydou ñu ngi lay bégee bu baax a baax. dina la ñaanal jàmm di béggee waa Seras yépp béggee mon frère Mansour Fall nee na kontaan na ci yow bu baax a baax waa Leewtoo yépp nga lay béggee moom na a baax ma leen di bëgg ci yow ah umu laay laay waxtaan ci bureau bi da ko fekk xeese booy bi ay da Diouf di fa ñu ko bàyyi doomu moomaay doomu 100 pour cent assurance damay bëgg ci yow waaye noonu laay def bëgg ci internet yi national ak international di leen jaajëfal bu baax jox leen dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV di la ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen